alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokki internet yu Passy TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen euh, jaajëfal bu baax a baax si ànd bu rafet bi ngeen ànd ak ñun euh, ci bépp programme bu ñu mënti am ci euh, biit Passy ak li ko wër tey jii de nag dañoo génn fi nga xamante ni moom moo di Passy ñëw fi nga xamante ni moom moo di Kébé Aynoumane ñu gën koo xam si Kébé Asphal. ñu war a amal li nga xamante ni moom moo di euh, première édition euh, résultat des Corans njàngum alxuraan moo xamante ni dañ koo jagleel góor yàlla googu tedd googu euh, di El Hadji As Fall El Hadji Abdoulaye ñu gën koo xam si El Hadji As Fall moom moom nga xamante ni moo nekk waajuru góor ki nga xamante ni moom moo di madame la maire de la commune de Passy di Seyda Khady Fall ak ki nga xamante ni moom moo di suñu mbokk Babou Fall. Euh, tey jii nag euh, di juróom-ñetti fan ci weeru euh, mai atum 2022 nekk première édition bi Passy TV déplacé wu ñëw fi nga xamante ni moom moo di kebe ngir wan leen li nga xamante ni moom moo fi war a tukkee ci ay teraanga jamono ji si la ñu toll di berndeel ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jaamu yàlla yi ngir teral leen ngir génne li nga xamante ni mooy sadaxa li nga xamante ni yéene nañ ko pour génneel ko seen waajuru tedd woowu di El Hadji Asfal Euh, ñu si noppee njàngam kaamil mi kilifa yaa ngi foofu si euh, mosquée bi ngir war a amal li nga xamante ni moom moo di kaamil bi lépp ñu war ko addiyeele euh, góor yàlla googu nga xamante ni ku sonnoon la ci alxuraan ku sonnee woon la ci alxuraan waaye ku jik dëkk bi la ku jëmmal dëkk bi la ku dooleel dëkk bii la ci xam-xam ak si njëpp ba tax na tey ñi fi dëkkee ñëpp tey man fee dëkkee kon si biir loolu incha allahu rabbi ci suba gi ba ci ngoon gi lépp lu xew fii si Kébé Asphalt incha allahu rabbi di ngeen ko mën a dund ci biir Passy ànd ak suñu cameraman di Seyda Mbose Mbaye Thank you.

waa ji de may na ma ndox mi moom baax na. Hey, you, why you dem leen bu leen gisee bopp ngeen jël lekk. damay jàppale. waaw alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokki internet yu Passy TV mbokki àddina bi mbokki Sénégal wërngal këpp ak ñi topp si euh, diaspora bi ñëpp tamit ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax tey jëlee di dimanche yemboog juróom-ñetti fan si weeru mai 2022 ñu ñëw fii nga xamante ni moom moo di Kébé Ainoumane gën a siwee si Kébé Asphal. Euh, El Hadji Asfal moomu nag tey euh, bésam la ñu ñëwal fii nga xamante ni moom moo di Kébé euh, ngir première édition ziar bi nga xamante ni njabootam jagleel nañ ko ko ñu ngi taxaw ak kenn si njaboot gi sëñ bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di nangu seen ziar bu baax a baax macha allah. incha allah tey ñu ñëw di ziar ki nga xamante ni moom moo di El Hadji Asfal soo bëggee wax internet yi nga xamante ni moom moo di El Hadji Asfal mooy kan. kan moy alasi Hadj Asfal fan la ciosano ba nga xamanteni ak jaar-jaaram permettre na tay ay njabotam ay setam ak jarbatam ñep dajalo tay ngir defal ko li nga xamanteni ni modi kamil di allah ñu ngi am contenté bu ba El Hadj Fall ñu El Asfal ñu gën ko xam El Hadj mu ngi gëné aduna ci 1927 ci ñu gëna min mu nekk goor Yalla go xam ne mag ñi sax waxon nañ dikkam laata muy ñëw ci aduna ndax di nekk ko xamanteni doom niku bax yaayam di soxna Umu Kebbe waaye juróom di tafsir malik Fall mi nga xamne mom la bañe su waxon ne bu doonul waliw yalla yalla awul waliw si kaw suuf koku moko jur jangal ko alquran jangana alquran ci ker bayam ba teri alquran musul genn ker bayam te loolu bëriwul si réew mi te yalla defal nako lolu mu nekkon niko xamne ko am fulla la nikon nikon xamne ko mokal alquran la waye nek niko xamne ku yar njabotam la si xam-xam si xam-xamu jamono ak xam-xamu bépp xam-xam boo xam ni da koy peg rek fexe na ba njabootam nekk si loolu mu nekk ñaankati yàlla boo xam ne ni bépp nit da ko daan ñëwal buur da ko daan ñëwal ba doolal da daan ñëwal borom alal daka daan ñëwal ku feebar da daan ñëwal ku bëtam xonk da ko daan ñëwal nit la woo xam ne da eh, dimbali nit ñi si fànn wu nekk boo ñëwee pour am mu jox la boo ñëwee pour xam mu xamal la boo ñëwee pour sa bët xonk dina la dimbale mu ni koo xam ne dem na ay màkka eh, ziyaare ji na Cheikh Tidiane moo doon imaam fii ci koñ bi ak ci tund wi yëpp lépp loo xam ne jaaxaloon na nit moom ngay ñëw mu dimbale la maa ngi déglu allah. waaw ah, macha allah euh, kooku mooy euh, waajuru am maam El Hadj ñu gën ko xam ci As Fall euh, léegi. ah alaaji yooyu ngay wax yëpp ci ay mojisaat ay xam-xam boo xamante ni tamit moom moo ko nekkoon nekkoon imaam si tund bi daan faj aajo yi daan saafara jàngoro yi daan teggi njàqare yi euh, loolu moo tax tey kon euh, mbokk yi soppe ak am di jàmm yeeg njaboot gi ñëpp dajale pour dafa ko ziar tey. wallaahi loolu la ndax nit ki euh, bu génne àdduna li mu am gannaaw rek mooy ñaan soit jëf ju mu fi bàyyi nit ñi di ko jëriñoo wala njaboot gu mu fi bàyyi ñu koy ñaanal wala njaboot gu mu fi ñu koy ñaanal ah. bu fekkee ne njaboot googu noonu ñu ngi koy ñaanal loolu mooy li nga xamante rek moom moo ko mën a jëriñ xaalaa kulli aalin hmm? njëriñ njëriñ loolu nag di ñaan waxtu wu nekk rek moom daf koy soxla donte sax moom wëlliw la te nekk na ni koo xamante ni mën naam ñaanal na boppam fi daaw na boppam ndax comme li la ko waxee léegi wëlliw yàlla la lépp loo xamante ni naqar la si tund yi moo ko daan jiite moo daan jiite eedi moo daan faj kii moo daan tudd doom yi maanaam kilifa goo xamante ni nit mënutoon natt xam-xamam fu mu toll nit mënutoon natt wilaayam fu mu toll soxla boo ko indilaan daan la baax na bu leen la baax na rek yow booy dem xam ne sa soxla boobu faju na nit la ko xamante ni ni daal su ma li mu mën a gàttal daal mooy la waaja waxoon nag jullit la si jullit ba gën nag waaw ci tijaan la si tijaan ba gën nag voilà macha allah xam naa taw bi gàtt na euh, bu taw bi guddoon dinañ si mën a wax lu bëree bëree bëree waaye am na ñeneen ñu ci kii wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yëkkati leen su gën a kaw Moustapha la Moustapha man maay man maay sëtam bu njëkk si doom yu góor yi macha allah muy sama xarit nag lool di sama xarit di sama soppe su may wax si moom sax sama xel dafay tooy ndax daf ma daf ma soppoon lool waaw dafa ma soppoon lool loolu moo tax daal man jaar naa bu baax a baax. ñu jaajëfal ko bu baax a baax a baax la ca maam euh, sa te koy mujjee. Euh, loolu la mag ñi di faral di wax euh, kon ñu ngi koy jaajëfal moom sëñ Moustapha Fall mi nga xamante ni tey moom moo doon yëkkati kàddu yooyu si maamam jooju incha allah euh, lenn si njabootam gi nga xamante ni moo leen jural boppam dinañ leen rencontré ñoom ñu wax kan mooy seen papa waaye lenn tamit si ay turandooram wala lenn ci ay yeneen sëtam incha allah lépp da ngeen ko mën a dund si biir Passy TV jaa ngeen jëf jërëjëf.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 إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا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 إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله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 القلق والقلق وكي أتو كوسي كل البلد فكي صار yàlla yërëm ko te jéggal ko te xare ko ko yàlla yërëm lii sunna la yonentu sallallahu alayhi wasallam moo ko digle ñuy dem ca baqeex di ziyaara julli ñi ñaanal yàlla yërëm leen yal na ko yàlla yërëm hmm. yal ko yàlla jéggal hmm. yal na ko ak mbokk fay hmm. yal na ko njabootam fay amul benn doomam bu ko jéppi loolu yàlla nottawul ko doomam yëpp gërëm nañ ko doomam yëpp sant nañ ko te loolu mun naa ko wax te duma ko kafaara day fekk mu doon dëgg ñëpp gërëm nañ ko ku nekk rek fexe na ba ngay yeewu ci àdduna bi ngay dund ku nekk fexe na ba nga jàng ku nekk fexe na ba nga xam te loolu rek am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala alquran sax moo ne qu anfusakum wa ahlikum naar fexe leen wax rek waaye ngeen fekk seen bopp ak seen ñooñ ci ëllëg xuru safara noo leen ci fegee mooy nga teg leen ci njub noo leen ci fegee mooy nga jàngal leen kon jàngal na leen teg na leen ci njub teg na leen ci yoonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teg na leen ci yoonu alquran teg na leen ci yoonu tariqa Cheikh Ahmed Tidiane waaye amoon na sëriñ am kilifa comme ñëpp Mawlana Cheikh Ibrahim moo doon kilifa tuddee na ko doom wax na ma nekk dafa dem mag daje fa ak Seydi Ali Cissé radiyallahu anhu ci diggante bi nga xam ne yonentu nee na maa bayna minbari wa bayti rawdatun min riyadil janna diggante sama néeg bi ak sama rawdu bi ci dëru aljana yi la bokk góor gi mu ne bi muy egsi foofu moo ne booba moom de am na kàttan am na doole mu ne waaye booba Seydi Ali bi mu ñëwee mi ngi taxaw amul fu mu toog nee na moom mu ngi téye kaamilam di waqaaf mu jël kaamil bi teg ko fi mu toogoon xuus mbooloo mi bi mu xuusee mbooloo mi dam jël Seydi Aliou teg ko fi mu toogoon moom mu jéem a booxante pour amat faneen fu mu toog ci gannaaw Seydi si Cissé radiyallahu anhu te loolu ba mu koy def du jëmmi Seydi Aliou la doon liggéeyal waaye Cheikh Ibrahim la doon xool ci Seydi Aliou nee na bi ñëwee la fekk kenn ci soxnaam yi am doom mu dem ko Seydi Aliou ne ko man kat dama ñëw fekk fi nangam Cheikh Aliou ne ko su bés baa man maa ñëw tudd ko bi mu ñëwee mu ne ko nun koy tuddee mu ne ko koo ko tuddee rek baax na Cheikh Aliou jël ko tuddee ko Baye Niass moom sax génn na àdduna moom tamit yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal kon xaadimu Cheikh Ibrahim la woon ci ñi doon liggéeyal xam-xam la bokkoon ñu doon liggéeyal alquran la bokkoon su ma bàyyi asfal mii tëdd waxuma en tant que doom damay wax la bàyyi waxoon ci ma la laay rek مولا عبدالله الله بن تالف تيري مناقب حاج عبد الله نار بيم بيم بيكو باي لي دافني ما احببته لانه والدي انما اني احببته لانني رايته من الرجال بغمكو غير مومو جور دي واي داماكو بغ غير موم غور دغ لا باي اسفال تامي غور دغ لا وون كلا بين كوي دنج في ياغ تيام كرمو جيبل ميغي واخني موم ليكو غنونو نيه تي ما باي اسفال تي جامونو ندوام su yegan ci kaw garab ben xur di jàng ñun taalibi yeb dañuy rombu fo non pour deg neexay batam bi ni doon jange alquran suma ben mag ni ma man dama nekkon Djibouti di déglu tafsir alquran bay ndax man loolu dootun sama itte waye bima ko deglo Djibouti lima fa nekk yeb lan la ci jange moy dama jàng ndeke pa batam ak batu Baay Ñas mun leena xamé ci tafsir alquran ken mun leena xamé ci tafsir loolu yëpp dara waru ko won lu beug Cheikh Ibrahim kon tuddee na Mawlana Cheikh Ibrahima moomu doom waaye daan gàmmu ji daan ko liggéeyal liggéey bu bëree bëri bëggoon ko Pape Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima moom la ma tuddee man su ñëwaan fii ñun ñëpp seetlu nañu sama baay ñaar du ko sol du sol mbaxana du sol dàll te lu lu mu bëccëg bëccëg dana oote ne kaay leen dem gétt ga loolu ñëpp seetlu nañ ko dama indi nag wala dama indi xar wala dama indi bëy te gétt ga moom nag rek a fa am ku ñu yeewil na ko nag ay toni liggéeyal na ko doxe na fii lu ëpp juróom fukki yoon dox ba daaru Mbitiyeen ngir góobi tool Cheikh Tidiane wala ngir bayi tool Cheikh Tidiane wala ngir nangam bés man fekkee naa ak ngóob man ak moom ak ñeneen mu téye ngóobaa ngi di góob ba daggal baaraamam bii ci toolu Cheikh Naama Tidiane yi fekk naa Pape Cheikh foo xam ne ni keroog dafa am jalaal mer waaye góor gi am na leneen lu mu ko waxoon keroog ci jotaay bi dégg nga boobu Pape Cheikh mu ngi lijjanti lu tax ñu togg togg yu tuuti yi mel ni ku mer ci bi mais ñu dafay jàpp ne nit ñi dañ daf leen jox xaalis ñu koy lekk sama bàyyi ne ko loolu war koo lijjanti yow sang nga sang bu joxee rek war naa fàtte lépp lu ci xam ne mu ngi caa topp kon macha allah loolu la yar doomam yi ak sëtam yi yëpp tëdd bii nag mu tëdd mooy tëdd boo xam ne ñun ñi ñëpp tëdd bi mu ñuy xaar wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati ñëpp danañ ñëw ana baayam tafsir Malick Fall mi nga xam ne mbaax gi yëpp ci moom la jógee ko tëdd na ana baabu Fall mi doon taawam ba Badou Fall mi doon caatam ñëpp tëdd nañ tey ñu ñoo taxaw luñ ko luñ leen deseel mooy ñaanal ko moo tax biñ xëyee ba léegi ñu ngi jàng kaamil bu jeex ñu jëlaat beneen kaamil yëpp juróom benn fukki sibla la ak téeméeri saara fukk ak ñeent dañuy ñaan lépp lu mu làmboo ci yiw yal na ko yàlla sotti ci xabru bii ba si tey bi lépp lu ci nekk ci maanaa yal na ko yàlla sotti ci xabru bi yal na yàlla yaatal bàmmeelam tey ba mboolem comme dëkk ak ci bés penc da nga yëg ne góor gi tey am na gan fekk njabootam ñoo ko doon ñaanal ci gannaawam yal na yàlla seddal leeral bàmmeelam ba mu leer nañ ñi ba ñooñ asamaan ak ñooñ suuf yëg ne tey góor gi am na gan ndax liñ fi jàng ci alquran ñaata aya la ñaata baat la ñaata xaraf la ñaata maska la ñaata tomb la kenn mënu koo wax te lépp yiw la yonent daal sallallahu alayhi wasallam bëggoon nga boo amee doom taxaw sa ngénte li tudda la su doom ku nekk yaa ngi doon nisar sa jabar di wàcc باي اس نيو مولا لا سيابار كون كي شيخ الاسلام لا دا اوتون شيخ ابراهيم ذاتا صفه حالا اك اسدا اك مقالا اك لب لك اوتون اوتي يونتي الله محمد صلى الله عليه وسلم في دنگا بغ دينا جي دينا جي جارال كو لو نيك جارال كو لو نيك جارال كو ني نيو نان بيل بيل هيمتي والحال لا دون ياري اي نيتام دولا دور دولا ساغا واي سوكو غيسه خام لي مبغ اندك لوليك اك مرتبه بييب دا نان غيسه بغ جوت مو تي ليرام جار ني دم سي تولي دي بودي جي اي نياخ soo ko rombee dégg ko muy jàng alxuraan mu ngay wëññi wëññi yoo xam ne baat bi da ngay foog ne sa baat bi baatu wurus la kon nit ci diina dëgg la. nit ci tariix waaw baal naa alal dalul ko dara. alal tamit ni mu doon duggee ci moom. noonu lay génnee ci moom may na ko oto. une Fiat xam ne daanaka bees la. du ma fàttali woon 28 92 may na ko mën na ko nijaay doy na sëkk man soxla soxla ma xaalis bu ci xamaan boo ko joxee xaalis bu dee ci gannaaw fàtte na doon da ngay dikk ci néegam de laal ngeen naali wala nga nga laal bi fekk fa xaalis boo ko joxee ñaat fukki junni ne ko ñi juróomi junni la it xamul loo ko jox moom masta tixee loo xam ne nii eh, wàllu xalal la xam na ci soxla mën naa xuut waaye bu xamee da koy tasaare da koy tasaare xamoon na pël ñi xamoon na séeréer yi xamoon na bambara yi xamoon na ñëpp képp koo xam ne nii xam nga asfaal rek jëriñ na la dëkkandoor ak yëpp képp ku feebar wala nga ñàkk wala nga loo mën a lu la mën a dare góor gi dimbale na dimbale na magam dimbale na rakkam dimbale doomi rakkam doomi magam ñëpp la dimbale soxla wu doon dara ba daree baloo jeex loo xam ne lu dul jaam yàlla moo ko moo loolu moom seede naa ko képp koo xam ne nii xam nga problème moo yow yóbbam jeex ñeme na féetee mas ta xam ci tappale dara ci àddina bu xande yow àddina yow feeg daanu hoo wala ngeen xand daane mas ta xam benn bés baax na loolu laa ci bëggoon sànni waaw kon ala kulli haal wa shahida shahidun min ahliha ndax moom bu seedee man nañoo gëm seedeem ndax dundam gi yëpp da ko def góor gi liñ ciy wax rek mooy ñi xam daal wax dëgg yàlla ne kii nit ñu ngi koy ziyaara ci àddina bi fekk moom itam yelloo na ziyaara comme kooku noonu Alaaji Abdoulaye Niass lañ ko tuddee maa Ibra Faal radiyallahu anhu moo wax ne um Omar Fatou Gueye um Mamad Fatou Gueye fas wi mu mayoon ummi Fatou Gueye ne ko Alaaji Abdoulaye day dem Faas jamal mu ñaanal la ma ma Mamad Gueye maa Ibra Fall moo waree fas wi kuusi ba kawlax jox ko Mawlaaj Abdoulaye Mawlaaj Abdoulaye ànd ak Baye Amadou Thiam bañ demee ñoom ñaar lañ njëkk a ñaan mooy nañ ñaanal suñu jigéen bi mu am doom mu ne ma Baye Amadou Thiam ne laa Abdoulaye wax su kayit yi ne ko bi ñu ñëw ko dafa am jigéen boo xam ne dafa taxaw amul doom moom la ñu ñaanal bañ xëyee sukkay ji ne yàlla wan na ma mandarga ne nangu na ñaan gi nangu na loolu tax bi sama maam Malick Fall tuddee ko El Hadj Abdoulaye Niass daanaka seen yoon woowu ñoom ñoo demoon góorgóorlu ji kon dañoo demoon dañoo dañoo dañoo juyu ko woon Sénégal ngir ngir jëggi ko ngir uti ko pour mu am ngir uti ko pour mu am mu nekkoon nam jëm yërmande ju rëy doon jéggale dégg nga fii da ngay gis ñun dañ daan ñëw ku nekk ñëwee kii suñ doomi yaay la suñ doom bajjan la ndax ñëpp la bootoon kum xam sa yaay boot na la kum xam sa baay boot na la bala ngaa xam ne tey jàmbaar la mooy ñu bëgg laa not mu yëg ko dafay taxaw ba nga am kattan faj na ko pare ñu amaat yenn soxla yu bees loolu yàlla mën na ko yéen ñu ko yàlla dimbale yal na yàlla def si doomam yi ca ca kaw ba ci suuf bëggante juboo déggoo ormalante ba nga xam ne lim nasoon dootul yàqu lim tabaxoon dootul toj lim yéene woon dana egg waaye gan yi nga xam ne ñoo bàyyi lépp ñëw depuis si suba ba léegi ñoom bu yàlla di fey ñu ngi ñaan yàlla yal na nga njëkkee ñooñu soo paree doon ñu doot ñoo fay ñu ñu moom fayal ñooñu bañ feesal dell ñoom gan yi ñëw mbokk yi ñëw ak xarit ñëw jox leen bañ doyal nga ñëw jox ñu bañ doyal te yow man ngaa jox ñëpp bañ doyal kon ñu defaatee benn yoon fukki xul waaw waaw loo xam ne dañ ko bëgg ñu xéem wala pour wax nit ñi da ko yóbbu fu ne taxul ñu ko waaye dañ koy wax te yàlla tax yàlla dogal na yàggu dara dara dara ci mbooloo mu mel ni bii ñu ngi ko tiim nam meloon dara changé wu ci barki Baye Niass man yàlla wan na ma loolu ci moom ci biir jotaay ma ràññee la ca ngay sànni ay kàddu kon bu yàlla dogalee tey jotaay bi amaat bi mu amee nag dama doon xaatale ci loolu kañ lay firee ko yàlla dogal tey ñu teewee ko ñëw tiim ko ngay wax loolu kon loolu leer nañ ñu la soo xamutoon duñ ko wax suñ ko gisoon duñ ko wax ndax lu ñëw jëriñ pour ñu ko wax te am te gisuñ ko suñ ko gisuloon duñ ko wax waaye yàlla wan nañu ko ci ñoom pour dëggal leen ne li ñuy wax ci moom lu wér la fii jamono yëpp xam nañ ne xew-xew bu mën a am bay as bu teew duñ def dara loolu mbokk yëpp mën nañ koo seet te ñun ñii ñëpp tey am na ci ñoo xam ne kilifa lañ moo leen tudd benn ci man mi ak keneen ak keneen kon loolu boo amee ñu defal ko ziyaare xeeru lu ëpp loolu kon ñu ngi ñaanal yàlla yàqare ko àjjana فاتية fukki xul ak benn fukki ayatul kursi yu fukki salaatu fatiha وقص الرحمن بغيب وجه وفرد وعين كريم إنا نحن المتى ونتما قدم وآثار وكل سنة أحصيناهم في مبين واضرب لهم مصر أصحاب خديجة المرسلون إذا صنع إليهم زين فكذبوهما فأخذنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلى فسمسنا وما عسى الرحمن من شيء إن أنتم إلى تكسبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلى البلاغ المبين قالوا إنا أطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليصبنكم من عذاب عليم قالوا طائركم معكم أيديكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم عليه وهم مقلدون وما علي العبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتقسم من دنيا على أن الرحمن بالدنيا لا تغني عني سبعات شيئا ولا ينقصون إني أسأل بإدرار المؤمنين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يرمون أخذ لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قلبه بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون فأصل على عباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يركم من قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجون وإن ما جميع لدينا مقدرون وآية لهم الأرض ميتة وأرثناها منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نقير وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكل من ثمره وما عملوا أيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم وما لا يعلمون وآية لهم الذين نصرف من النار إذا مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذلك العلوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الإنسان النار وكل في غيره يصبحون وآية لهم أنعمنا ذرية من كل مسلم وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نصح نورهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقصون إلا رحمة منا ورضا إلهين وإذا قيل لهم ما بين أيديهم وما خلف الله لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كان عنها ويعطيب لهم أنفقوا مما رزقهم الله على الذين كفروا بالذين آمنوا نطيب الله إن الله أدعمهم من الله الضلال المبين ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينصرون إلا صراطا واحدا تأخذهم ويخصمون فلا يستمعون توسعهم ولا إلى أن يرجعون ونلقى بالسور بإذا من الى العربي يسجدون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحد من سواهم جميع لدينا مقدرون فاليوم لا تصدر نصر صيام ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في سوء فاكهون هم وأزواجهم في سرير على ضرائب متكئون لهم فيها فاكهة ولهم عين لهم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم امتازوا يوم أيها المجرمون ألم اريدكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين نحن نهدي على صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون تصلوها يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتسال ارجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فانا يسكرون ولو نشاء ما لا كان فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ومن نعمل نسكت في القرار ولا تعقلون وما علمناه سحرا وما ينبغي له ان الا ذكر وقران مبين لتنزل من كان حيا ويهيق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعامهم لا مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونها آيات لا لم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يصلك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من هي العصا وهي رميم قل هي الذي امسكها اول مره بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون اله عبد سبحان سيدنا محمد الفاتح ما خلق الخاتم لما سوى نازع ولا الى صراطك المستقيم على ال قدير مقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق الخاتم لما سبقنا وهدنا صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتمة والخاتم لما سبقنا صراط بالأقوال إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر العظيم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زيارتنا إليك يا alhamdulillah rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki eh, julliti adina bi ñi sétane ci bir eh, TV ak eh, liko wër ci bir Sénégal bit ci Sénégal yépp si diaspora bi yépp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di amaat ak contentement bu baax baax di ñëwaat ak yeen si seen jotaay yi ñi faral di amal ak fep fu mën ti doon ci li wër Passy ci bit réew mi yépp Euh, fep fu dine am ñi déplacé wu ngir wan jamm yalla li nga xamanteni wala jambar yi nga xamanteni ay jambar fak tud lañ nekkon di yalla yalla ba tay euh, yalla may leen ak njaboot bu barké si biir lolu nak ñu déplacé wu ñew fi ci commune bu ñessène babu Dado si ab village bu ñu wax Kébé Aynoumane Kébé kebe gën a siiwee si Kébé asfal, Fall El Abdoulaye Fall bobu ñu gënoon ko xam ci asfal tay mom première édition ziar. wàccee nañ fi kaamil war nañ fi amal ay waxtaan yu ama am solo euh, waaye laatay loolu képp ku ñu ziyaare ku nekk rek war nañoo xam kooku mooy kan ba tax na ñu ngi toog ak euh, kenn ci doom yi ak kenn ci sët dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu su ko defee ñu seq moom ay laaj ngir ñi nga xamante ni tey daan nañ dégg euh, El Hadji Ass boobu ñu xam dëgg-dëgg jëmm jooju mooy kan lan la représenté woon ci dëkk bi ak ci département bi sëriñ bi salaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa Passy TV di leen ziar eh, man maa ngi tudd Jim Momar Fall ñi gën may xam ci Baye Jim ma nekk doom ci sëñ bi ndax rakkam bu góor moo ma jur moom moo ñu yar ci këram lañ nekkoon moo ñu jàngaloo alxuraan moo ñu jàngaloo école ba tey ji ñu nekk li nekk ba ñëw di ko ziare ci Kébé ay nomades di leen ñëw dëkk bi nga ne Ibra Fall moko ko di mag ci góor gi loolu laa amagum maa ngi lay nuyu di leen ziar asalaamaaleykum. Euh, macha allah euh, góor gi buñ bëggoon xam kan euh, ndax borom xam-xam la woon góor gi ñan ñoo ko meññi fan la jugee ko ñëw fi ndax moo sanc dëkk bi mu dét ak góor gi tey produit am boo ñu wan qualité góor gi lan nga ñuy wax ci moom. waaw waajuram bu góor mi ngi tudd Tafsir Malick Fall wëllu yàlla xaqan la du ñun ñoo ko wax waaye Baye Niass Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ker ba waajur woowu génne àdduna di Tafsir Malick Fall moom moo ko seedeel ne si duud wëlliyu yàlla amul wëlliyu ci kaw suuf kooku moo jur El Hadj Abdoulaye Fall waajuram bu jigéen soxna ummi kebbe la tudd usmaan Kebbe moo ko jur Ousmane Kebe moom muqaddami El Hadj Abdoulaye Niass la baayu Baay Niass nettali nañ sax ba demee Faas bañ jox ko ñeenti per si kursi Cheikhou benn si ñeenti per yooyu Ousmane moom la ko joxoon. Ousmane Kebe moom El Hadj Abdoulaye Niass it seedeel yàlla xaqal la ndax mag la bokkoon El Hadj nag waaye juróom bu jigéen dafay yéexoonoon am doom moom mooy taawam. dinaay faral di wax ne. mom dañ ko jangal alquran njëkk mi judd pour tàccindi ndax ñaan nañ al jang nañ alquran ñaan yalla momu judd tuddu nañ ay turu yalla jang nañ ay salatu ala nabi ngir momu judd ala Abdoulaye Niass moomu ba muy dem fas lako mamam maamam wala waajur bu jigéenam yebante ne ko bo demee nga ñaanal ma Cheikh Abdou Cheikh Tidiane ma am dombu bu bi Alaaji abdoulay Fall juddo ñu tuddé ko Alaaji abdoulay Niass di bayu bay Niass mu juddu ci këru daara ndax wóor na ma ker ba mu juddoo fekk na kër gi ñu wàccee fa alxuraan ndax daara ju mag loon ci tund bi ba mu koy ngénte wàccee neen alxuraan alxuraan jooyu moom la nàmpa mu wëttu ko lu leer nañ ci kanam ay waay juróom mosut ko fàtte benn yoon ci dundam jàngal na ay kaang yu bari fu mu mas a toog dina gàcciloo kaang ndax dina leen natt ci alxuraan loo xam ne duñ ko xam kooku magam moo sañ ci dëkk bi magam di muqadami Bañes moo topp ci premier taalibe Bañes muqadami Bañes la moom El Hadj Abdoulaye boroom borom xam-xam la bi baayam gaañoo mu ngi dëkkoon ci kebe gii ñu wax kebe mbudaay foofu la juddoo ci kanam baayam bi baayam gaañoo sañc yoon na dëkk bi ñuy wax ñiilin ci côté Kër ma jëbel booba taalibe yi bari na te doole amul mu dem foofu pour bay man mag nettali na ne ma su jaan mattan nit boo indi ko si El Hadj Abdoulaye Fall mii dalay wax ne demal comme gis nga war a jaan ji wàcc na da ngay toog fii séen ko rek mu la wëññeekul kon kooku wëli la xaqan ñun bañ nekkee xale ak moom xat mu alxuraan dafa demoon ba nga xam ne dafa nekk aada si ñun semaine bu jot bu joo ko fii tusubaar su wuññee ko kër gi rek kaa leen ñu xat mu donc kooku ku baax la te bokkoon na ci muqadami magi Medina Baye Niass xalifa bii di Cheikh Ahmed Tidiane bu génn àddina barke démb Cheikh maa ngi ñëw heure ñëwaan fii dina ko jox nag gàmm jot dina ko jox nag doomam yëpp ay mu taalibe Baye Niass lañ si leneen yar ñun euh, Jawharatul Kamal ñu ngi ko mokkale ci géew wasifa te gisuñ ko ci bind ngir moom dama fàttali ko bu ñu nekkaan xale bu ñu fubal dañuy fubal sol kilote ñàkk tooy xepp mu ñëw lëng ma dama kaay nañ dem julli ji ak kilote nga ñëw mu ne jàppal noddal nga noddu mu ne li xaamal mu kabar jiite la mooy mu ngi lay nàmpatal ne yow ci lii ngeen war a yaru ci lii ngeen nekk moo ñu tarbiya moo ñu soob ci tarixa tijaan te ñii ngay gis ñëpp moo leen jox tarbiya moo leen jox tarixa tijaan ñun bu nekkoon ci dëkk bi dañuy wax ne ñun ñu ngi ci sécurité parce que xam nañ ne baatinam fu mu nekk rek jàmm rek moo fi am nit daan na ko dikkal fu nekk daan na ko dikkal foo mën a nekk même sax yii xale yi di wax mooy daan nañ wax ne amoon na ab jamono kuñ neyu rek sa sacré day dem dangeen daan nit mas na ko mag nettali na ma ko su ma ne ko kenn la si soxla yu mag yi bu loolu xëy mu ne loolu du dara mas na am ñu indi ko ci góor gi dafa ñëw jox ko loxo na ko demal mbir yu dañ waaye yàgg na dimbale ay góor yalla ñu ci bari fii moo leen sampal kër te yemut ci di leen jox dépense di leen taxaw benn mag wax na fii te xam naa dina wax nee na daf ko gunge benn bés ba jub dëkk bi na ko defal ndànk bàyyil sa xel ndax nit ñaa ngi wax ne yow doo tekki diw nit ñaa ngi wax ne yow doo tekki diw nit ñaa ngi wax ne doo tekki ñetti yoon diw moo tey njabootam yëg réussir nañ ku loon dimbale jaamu la da doon toog ba diggu guddi mu jël ay saako dugub ne la yëbbul kër jiw ku ronkoñam waddoon ci moom nga jëm ngénte bu am ci tund bii moo koy tudd dëj bi mën a am moo koy jiite ku lewetoon la nag ku bëri lum noon kaf ak ay sëtam waaye du fa nag du mboosoos foo ko fekk mu ngi téye jukki bi rek di jàng ci gattal lol dal mën nañ ko wax ci goor bi ba nga yenen eh, lacc yi nga xamne war nga ko laaj. sha euh, allah lolou kay kep ko xamanteni melokan yi ak jikko yi nga tuddu euh, yalla dëxëñ na ci joji jëm rek euh, la bu done mérité na ñu defal ko ziyaara ndax nak ko xamanteni dañ la téro alquran la alquran nga judd ko nek borom xam-xam yaraté kat ñu ne déeti waaye yàlla wërsëgal nga nekk taalibe Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ñëw nekk taalibe Mawlana Cheikh Ibrahim loolu ci ay ngëneel yëpp te bàyyi doom yi yëpp ak taalibeem yëpp ay wàllu yàlla lañ ndax euh, li leen yàlla wërsëgal muy nekk ay aarifu billah amatul leneen maqaam bu koy faree kaw ginnaaw bu yàlla kaste buntu nubboo yi buntu wilaya yi moom du tëju te bàyyi mboolem koy taalibeem rek am nga wilaya te képp ko sa wilaya sax rek siyaara euh, la war na sax kon góor yalla gi yakarna naa bi su su internet di seetaanee rek dañ xamné ne yex nañ ko defal li wa xana nga rappelé ñi ci dundam rek euh, at yim ju dundu déggoo nañ ci suba mbokk mi waxon nañu né 1927 la gane si adina, kañ la génn jamono ak euh, ginnawam naka la organiser ay njabotam ba nga xamanteni da tek na len ci yoon waaw gi man dégg na ci domam bu mag. mu ne gis na benn carte d'identité boo xam ne 1922 la góor gu juddu xam nga juddu jamono boobu daanaka calendrier yi nit ñi fonkuñ ko woon lool waaye mu ngi juddu 1922 entre 22 25 yooyu moom la góor goo wax ñu ne gis na loolu moom na mi ngi gaañu 2016 la génn àdduna 2016 la génn àdduna wala Moussa yaakaar naa 2016. 2014 le 16 avril 2014 la génn àddina waaye yar na njaboot gi yar goo xam ne kenn xamut ku yar lu toll noonu parce que famille bi rëy na lool doo fi gis ku téye cigarette di tux amut ci famille bi kenn du tux kenn du def lu bon man ma fàttalikoo su ma ñëwaan fii tàggoo yoon wu mujj ma tàggatoo ko maa ngi ñibbi bi ma fi ñëwaatee rek la gaañu mu ne ma yaa ngi dem. taxawal mu wax la bul def lu bon bul ànd ak kuy def lu bon te na nga jaamu yàlla soko defé lépp lo nek yàlla dina la dimbal amna ay dom yu wattu alquran amna ay dom yo xamne ay médecin len amna dom wa ay commissaire commissaire bip brigade d'intervention polyvalent koku domam la moko jur mu ngi ci mbolom yi nga xamne danaka les autorités rek lañu ñu associé si président de la république les ministres amul ñeneen mu ci biir mbooloo mi maa ngi jàkkaarloog moom. kooku ku mel ni kee taxaw borom kaala ge mu xadami Baay Ñas bu mag la daan na jàngale ci kanamam ma fekkee ko daan na wax sax di yéem xam-xam yi doomam benn ne diw lum mu xam fan la ko xamee am na ay médecin am na ay commissaire am na ay ñu wattu alquran. am na lépp loo xam ne mi ngi am si famille bu baax mu ngi ci famille yar na doomam yar na ay jarbaatam yar na ay sëtam yar na ay dëkk ndooram amul kenn ku mën a wax mës na gis benn mboosoos bu mu def mësul ko wax mësu ko digle kooku jàngal ak jàngale ci la nekkoon weeru koor bu jotaan njëkk mi gën a màgget si ron garab gii la doon fiire alxuraan ñepp tew mi firi alquran di firi ba kamil jeex daf nako ay yoon kon tax alquran ala jabla Niass bayu bañas bimu bi Égypte ku ci nekk di wax ci fanne bu mu goral ci xam-xam dafa wax ne man sama loxo lu sori la ci firi alquran ndax firi alquran ñu jang ñëpp borom xam-xam xam na ne ku amul xam-xam amon Nahu mëno firi alquran mom na yàlla jagale na ci koku mo yar ñi ngay gis ñëpp ba nga xam ne mujj dundam man fekkee naa benn doomam boo xam ne militaire la ñu ñëw mu ne diw mu ngi fii doom baa ngi Casamance mu koy wax ma dégg net net mu ne robel yaa ngi koy ñu ngi koy wër bugg koy bugg koy bugg koy fexel yàlla mënoon mayoon na ko gis-gis waaye xalimbaam lu jéggi day lool lim la bindee yàlla da koy nangu waaye musu si lor nit yàgg na ci dimbale jaamu yàlla nit daan na ñëw di joy yaakaar ne tay jant bi du so dalay wax ne jant ëllëg bi sa dina so toogal rek domi jamburi sa ñoko ñoo ko ay dom mom jappone ne lépp lu yalla bind rek ci njabotam la bok dekk bi so teewoon micro man gis naa doomi jàmbur feebar daanu crise ñun rab lañ koy wax mu faj ko parce que ñi boy rab sa dom day genn wallahi ba may kër gi la domam bu jigen crise xamna ko waaye moom gisuloon ne dimbale jaamu yàlla yi rek moom noonu la nekkoon ak nit ñi ñun daanuñu ragal ñun mooy buñ naanaan saafara moom la buñ takkaan téere moom la buñ déggee alxuraan moom la buñ demee wasifa moom la buñ zikiree moom la te nag su suñ morom yi demande di football yi ñun ñu mu ñu dem kaay leen jàng alxuraan suñ demaan bay football dañuy yolleeku jaarale si bunti gannaaw ba dem seetaani football am na benn jamono suñu morom yaakaar naa sax ñun duñ tekki. parce que ñun kenn ñimuta dem kaolak ta amo entrée en sixième fii la ñoon toog di jang so amul en sixième fa dem ku amul bac do dem Dakar kep ku massa am bac ci ay domam jox na la beuy wala xar ñun ñu mujj am do ki sa fekk mu nekk mak jox nañu 5000 mille si li may tëjee ay mbokk ñu bari dañ yaakaar na jang français dafa haram waye lim wax moy su jamono da ngay ak bi mu dugalee ay doomam alxuraan eh, kii dama jum école français ñu ci bëri wax nañ ko lu nekk waaye tey ñu ngi nii ay pharmaciens ñoo fi nekk doomam bu may commissaire la amul mu dimbaliwut ci nit ñi jàppale leen dugal leen ci police bi pour ngir ñu liggéey te buñ tegee géewu alxuraan léegi ñu ñi ñëpp français laa jàng kii la jàng dañuy téye suñ jukki jàng kon kooku yar nañu ba fuñ dem kenn duñu xeeb man fu ñu mës a dem ci njàng français lañ gën a jàng mais dañ la jiiteel kenn ñi mu la jiitee kanaa yow yaay bañ kooku moo ko def si yow ci fulla ci fayda moo ñu yar li may tëj yar boo xam ne ñun gisuñu ku ñuy ragal ci kaw suuf suñu amee dëgg jiñ koy wax dañ koy wax ndax gëm nañ ne yàlla rek lañ yaakaar yàlla moo yore suñu bakkan waaye nag duñ tooñ duñ def lu bon duñ dimbale kuy tooñ waaye ku ñu tooñ di aussi ñu ngi lay moytu lu ko ne am nañ waaye am nañ waajur boo xam ne am na lu def si ñun ñu ngi jégalu la barakalaa fiik jërëjëf sëriñ bi kon dañ lay jaajëfal bu baax macha allah yaakaar naa ñi xamutoon xam nañ ñi xamoon tuuti xam na luñ dolleeku ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la jaajëfal xam naa dañuy dalalaat mbokk beere incha allah. laa ilaaha illallah laa ilaaha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 ونوفرك الكمال في الله وفي الله بلما ونوفرك الكمال في الله وفي الله بلما أنت الإذ من كل الله مقوف القوس مرام كون لا إله إلا الله لا إله إلا الله شكورنا قالف أكمال والأقوال بلما شكورنا قالف أكمال والأقوال بلما يلين جنب العزيز الله خليف القلب مرام كونا لا إله إلا الله لا إله أي برا أما يلين جنب العزيز الله خليف القلب مرام كونا لا إله إلا الله لا إله غير الله لقد أوتيت كل فيكن فقول العباد أما لقد أوتيت كل فيكن فقول العباد أما حبيب أتباعه ولوج كل برامة لا إله إلا الله لا إله غير الله علمت كل جدواك سوى صليك برامة علمت كل جدواك سوى صليك برامة جميل جابر الكسري لمن وافاك برام لا اله الا الله لا اله عبر أعمى جميل الجابر الكثري لمن وفاك برام كونه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إمام الأولياء كله صلى الله عليه وسلم إمام الأولياء كلها صوت مرامة بروز أقوى تقيك الورق عرفان مرامة قولا لا إله إلا الله لا إله عين الله رميت قصر لديني يا منتشب الأمان رميت قصر لديني يا منتشب الأمان

يلم في الجبروت كذا الملكوت برام كولا لا إله إلا الله لا إله برام يلم في جبروت الملكوت برام كولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما أبدى الكون فينا صوت سير الله الغرام ما أبدى الكون فينا صوت سير الله الغرام الشراثير الهثيري لأهل السير برام كولا لا إله إلا الله لا إله أما الشراثير الهثيري لأهل السير برام كولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قاتل لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله قدر عند عار عظيم